lan nga jàpp ni moom mooy les non lee les non euh, am na loo xamante ne yaa yaa y' a des deals entre Sonko Sonko et notre camp que gis ngeen lu ma wax am na ko ko révélé Cheikh Yérim wax na ko tudd na ci ay nit mais man lu ma ci gën a jàpp parce que mënu ma bu ma déggee la nom de Ousmane Yara man mi xam Ousmane Yara j'ai mal Ousmane Yara ba du ba di dugg suñu république. ba di dem Cap Manuel di seeti Ousmane Sonko di ko di di dox dox bi di duggante ak président benn institution ñoom ñaan ñuy dox ak ay fonctionnaires ñuy dox dox bi Ousmane Yara na ma yàlla baal mënul bind turam Ousmane Yara na ma yàlla baal seen seen c'est une persona non grata aujourd'hui en Guinée parce que bokk na ci tey problème Guinée bokk na ñu ci bokk. waaw nee nañ c'est un grand diplomate. yàpp c'est pas un diplomate Ousmane Yara. bu la neexee tey guddi mën nañ dem ci casino yi moo wala kan mooy Ousmane Yara. ah ben c'est tout le monde. non je te non je te dis la chancellerie loolu non je te dis il n'est pas de la chancellerie je le connais très bien Ousmane Yara est interdit d'accès en Guinée Ousmane Yara est interdit d'accès au Mali Ousmane Yara actuellement même il a des problèmes avec le président togolais ci télé laay waxee. Ousmane Yara même au Nigéria président bu ñu wax bu mu faloo la fa gëj ñeme mu fa dem. waa léegi nit kooku noonu bu ñëwee di yaataa yumbee ci suñu dëkk. kii la kan mooy ah, responsable en plus mu ànd parce que en plus mu ànd ak un colonel Touareg un ancien colonel du Mali et on parle de la situation géopolitique dëkk bu mu dem takk na dem na Guinée tàkk na dem na Mali tàkk na mu nekk noonu amul wër xam xam xam boo fët bi nag bu ko imputé non imputé wu ma ko non je bi mais ñi am accès ba dugal ko ci biir système bi mu jaar ci président institution bu bu mag bu nekk ci réew bi ñëpp xam nañ ko parce que combat la ci biir combat mooy lan tey am na ñoo xam ne lorsqu'ils ont vu venir Ousmane Yara amul bunt du muy jotee président Macky Sall ci la ñuy jël def deal woo Alioune woo pour pour woo Pierre Goudiaby Atepa woo ñëpp pour mën a ak Cheikh Yérim Seck bien sûr pour mën a valider loolu noonu man personnellement y yaa yaa yaa y a mois de cela am na ku ñoo gis ma pour pour. parce que Ousmane Yara il était fréquent chez les femmes de Sonko man quelques mois y a des gens qui sont venus voir pour que ma dox ma ma dox rôle boobu. mais je me était chez les. chez les femmes de Sonko. ok li may wax dama koy xam. beneen bi mooy parce que man y a temps on était venu me voir pour ça mais man damaa gëm ne Sonko s'est battu avec l'état boo xam ne ci laa nekk xeex ak moom ñi jël ko jiiñ ko lu ñu koy jiiñ man duma delluwaat ci ginnaaw di négocier ak moom parce que. comme l'a di lu ma gëm mooy dañuy dem procès bu nekkee liñ koy jiiñ defuñu ko defu ko ñu setal ko mais liñ koy jiiñ am na am na ñu ko def ñan ñoo taal université yi ñan ñoo taal bus yi ñan ñoo taal station Total yi ñan ñoo taal commerce yi ñan ñoo rey nit ñi c'est des Sénégalais qui sont morts sont nos parents maintenant on veut prendre tout dans un rapport jël lépp dugal ko ci ab sac jël ko sànni ko fale mel ni amul kenn ku def amul kenn ku def pour man. nous avons failli quelque part mooy lan nit ñi topp nañu seen xol mooy seen xeexu biir APR xeex boobu moo indil Sénégal tey li tey. Ousmane Yara xeex bi dinañ ci ñëw. voilà ñu des ba tey ci.